jàngat aussi pour xam ne mooy loolu ab diggante góor ak jigéen ñu ngi sëy mais daal coow guddi coow ngoon ñu ne lan la ñu ne kii kat da koy denc muy soxnaam waaye xëy na daal fa mu bëggoon wala na mu bëggoon mu demee nii ñoom ñaar seen diggante du ñu mën a deme nu ne lu tax du ñu mën a deme nu ne kii maanaam kii nee na su fekkee mi ngi seq ak moom du ko yëg wala du ca am benn bànneex ñu ne luy sabab sax ñu ne ah ba muy gone ndax ndeyam daan na ko woggi mhm. woggi jërëjëf waaw doom ju góor danga koy woggi boo koy couche doom ju góor soo ko dee nàmpal ba uuf ko ba sang ko ba pare ba taf ko sa bopp nii da koy diwal karité ci waa yàlla yi di ko woggi pour mu ne nong ci kaw lu ko mooy day xóot ca suuf dafay sori da day wàcc ah non demal demal yaa ngi fi garaaw fal. yaa ngi fi lay wax man lu ma leer la te maa ngi leen di xaar amu ci lu may ragal wala ku ma demal demal demal demal fu garaaw nga nekk. Ah. yaa ngi joxe duñ ko def doon koy bàyyi. Mm. ay waa yàlla nekk ca suuf. Mm. waaw. mu jóg ñu koy solal ay silib yu seere seere seere mhm. te xamul ne da koy delloo mu delloo ko gune danga koy solal caaya su doon démul ne si mbang muy dox muy lang ba ba kuur gi lang di yaawee kuy gudd. su ko waaw su ko defee jigéen du ko waaw jigéen. non non amul woon loolu amul woon couche amul woon yooyu. ah couche amul woon. mais couche carré c'est ah. amul woon rek ma ne ko couche amul woon rek simbang moom nga daan sol demee ko ci mbaal mi wala nga sol sa mbabal mu rëy moo xam ne dégg nga yow sa këf ki di nga ci gis kook ba këf ki day dem ba daanu ci lupp bi ndaxte ba kii du am dara lu koy téye liggéey. dëgg la mais mu sol. loolu ban njëriñ la am père. waaw moom lay ñuy ah, expliquer. Ah, ah, ban njëriñ la loolu am. nañ ko déglu loolu mën naa tas kër de Sophie. mooy li mu yàq tey moo tax ngay xam ban njëriñ la am. Sophie kii sama génération yàq kër de. di nga gis koo xam ne yorul dara. dépasse pas matul. loxo ba jotul ginnaaw mënul dara doon dem ki jigéen ju rafet a rafet di daw ci ay bokkam di jël. di ñëw di indi di ko jox te nangu wut mu génn ca kër ga. Mm. ah la. loolu di lang la. ah waaw. non oh, man père non non père quoi. non père non. loolu internet yi tamit mën a. internet yi ñoom tamit ñu ngi réagir doomu aadama. ci lan la wax nee nañ biblo nee nañ nga lu leer ah, ngay wax. am na ñoo xam ne nañ seen maam moo leen yar te li nga leen di wax nii loolu lañ leen loolu lañ leen wax. d'accord tey. <laughs> d'accord Sophie. <laughs>